torop Amina Diagne dama la jox cër torop ngene dang ma address, man tamit dama la buga address, and I want you to take my this advice Amina Diagne uh, Amina Diagne yo fi TikTok bi que hafi TikTok bi fini ni hafi undi social media bi yeb ya ñu mag ñun mut nga ñu yaay fi nga fi tok nga dem wax ak ayon lidi be ayon lidi record la hmm? ayon lidi mu record la da nga dem nga wax ak mom ci souf mu record la ma call la mané la amina jangé ne man na mané la ah, ayon lidi daf la record de ngena ma harama call ayon lidi nga dem nga call ayon lidi nga wax ak mom nga ñu nga mané dama call ayon ah, lid way ayon lid mu ngi route ci téléphone mu ma disrespect fekk man ab bib rasta ñun ñoo nekkoon ci call di ma nga taal live nga yow ya wax ayon lid mu record la amina jaañ waxuloo ayon lid mu record la ayon lid da fa record te because da nga am problème wax ayda bus loolu lo motax nga ne ma waaw maa mu record ma uh, yo ya ko murekolo rek la yow ko mu because man dang ma ngene ma ne yawa uh, yawaati ayo lidi yenen ge hulu si suf yo ya ma ko wax si kol bi bibi rasta mu si kol bibi rasta su fekke ne yaa ngee seetaan live bi fi dama bugg nga comment because man dama bugg nit so neke mak lum tanga tanga lum meti meti del wax lu am ñëwuma pour disrespect la tamit waaw bibi rasta dama just dama nga clair clair lolu ok ok kate lii ma waaca ah Amina Jaañ loo fi wax yëpp suma kanam la am suma nopa si groupe kool mu ne ñu xaar ko si call bi mu ñëwee dem te ñëw toog nañ si call bi ay 30 minutes ñëwut dégguñ ko teg si ayo le si boppam mu ne moom leena rek la rëccu mooy record bu mu record Amina Jaañ kon lu tax waxu ne Amina Jaañ moo wax ma record ko lu tax mu rëccu mu rëccu. man Amina Diagne dafa ñëw. Bébé Rasta Amina Diagne dafa ñëw mu ne moo Iron Lady ñu ngi am misunderstanding Iron Lady mu ngi ko bugg a disrespect si kool. mu ne loolu suma kanam la am suma noopa. mu ne dafa dem mu wax Amina Iron Lady lu tax nga nekkoon ma ba lu tax Amina Diagne war a toog si media mu ne moom moo wax ne. moom moo wax ne Iron Lady na ko record. loolu moom sister Amina Diagne that that is not true te mag mag buy fen baaxut. pare naa su wàcc naa. waaw ba waaw. soo suñ jógee foofu tey tey dama bëgg a tëj tey cap yëpp laa bëgg a tëj cap yëpp soo léegi buñ jógee waat foofu noonu tam di seen Amina Diagne mu dem mu taxaw Facebook live mu ne kaate la Aida Boss dañ nekka te loolu nekkul dëgga maanaam Aida boos mu si ñoo nekka Amina Diagne you are my waaye soo gisee ma laa wax lii maa la ko sañ a wax because danga dem nga def sa uh, live video nga mention fa suma tur te soma kolé soma amuton waron nga xaar bima ma pare si live su xaar saar bi nga kol ma nga wax ma lo ma wax yow mak nga man xale laa mun nga wax lu do xam lay tontu te man buguma la tontu tam buguma la disrespect comme que yow nga mak nga dem si ayun li di xale bu ndaw bu faju dara ciut bobu non Mollah Record meruloo si ayoon le xale bu ndaw bu la record nga ne yow da ngaa man man boobu ñàkk a fayda man nekkuma si boobu disrespect man bokkuma si comme que yéen mag yu am nii yéen dem ci xale bu ndaw boobu noonu ngeen waxaa moom di wax affaire yi jàmbur même danaa record man loolu doxuma si indi next minute nga bugg a ñëw jël bileem bi bileem ma te bileemuloo ku la record te yow ngeen ne yow yaa wax kooku sa Facebook live ngeen yow yaa wax kooku mu record la. te yow yaa ma kool ngeen ne ma ne da ayoon lidi sax mu ngi la bugg a disrespect lu tax mu record la. ngeen ne ma ne da ko wax ne ko lu tax ayoon lidi lu tax nga record ma ngeen waa ayoon lidi yéen a ngi xaw a am foofu. Amina Jane please. luma la as em moom as em mooda biko buku bugguma laa fi dara lo xamante ni dama la saga wala dama laa disrespect wala dama laa dépasse bugguma ko def wa luma la bugg Amina as em moom as em mak as yaay hale yëpp si social media bi biko ya nge ngi wax ne man mare dee jaxase nit Amina Diagne always life bo de tar rek problème la life boleh tarik problem rek si mag man suma waré roy si nit wala ma sét kuy def nit ku baax yo man suma la waré sét yow you are my moda ala mama wa dama nekk ci yow katel bala man dama nekk ci boss bi doguma la dama liggéey amina jang dina dina la wa, dina wax ne ayon lady daf ko record parce que dafa rouss ce kilifa bu toni momu dem ci ayon lady diko jox suma turi mam section diko jox suma turi yaay nogay gey diko jox suma turi papa amina jani moma yar london kona Amina Diagne moo dem si ayoon la di di ko jox suma turi maam waaye yow Amina Diagne section du na na ba dee musuta toog euh, social media di saagante Nogay Gueye dunda na ba dee musuta toog social media di saagante waaye da ruus moo tax ne yaaw ayoon la di mu record la ci ma la waatoo na ñaan na ma sa mbir may naa ko si statima waaye Amina Diagne génnal ci man yaa ngi may dégg du man ak yow depuis lan moo nekk ay mag sa ay mag ay mag ngay xool ne di joxe information ni jàmbur sax for what reason hôtel maa ngi si boss bi damaa wàcc damaa liggéey ñàkk nga fayda torop si meer wasalaam indi suuse ay mag ñu ñu war a toog ñu ñu war a yaay social media ngene ne yu ndaw yi ngeen ne yu ndaw waxal si in social media Lo dafa ñaaw man soo gisee live bi nag man ma la dama la jox respect na lo motax nak waxuma lo xamantene ni fi sax boy moderator yi please boy moderator yi bu len di egal nit suma ma ma wax Baby Rasta dina ñew Baby Rasta full book la amé té lu mu war wax ku nekk té di nga wax té lo bëgg wax Baby Rasta mutal ko rek nga wéetali rek bàyyi ma mut love you so legi naka am turaat Amina Diagne man a ah, sa dom Amina Diagne li la la bëgg ñaan te gambian society bi xale yi yépp xale yu nekk si tiktok bi yu nekk si facebook bi yépp amina ja ñu ngi join sun hands ñu la ñaan last time bi bo fi amé problème aba mbiri ayda bus bi nga ne da nga feebar amina ja dama tal suma live ñëw fi tok si tiktok bi mané len leen ne nañ la ñaanal amina diagne donation pour mu dem faju ñu tok fi ñu la ñaanal donation si next day bi amina diagne da nga dem nga meko bi baax ya nga tok facebook yang nga wulu te fi leen taal ñu yërëm la taal suñ live taal suñ live laa la wax ni di laa ñaanal donation ñu ñaanal la donation tey si élection da nga meko bu ba baax toog Facebook di yuxloo te dimbale rek la dimbal rek lañ doon def Amina Diagne léegi man maa laa ñaan ñun xale yu nekk indi social media yëpp ñoo laa ñaan yow suñ yaay nga dañ la bëgg Aminajan, ñaan Amina jañ pour nga jël break on social media Amina jañ dañ lay ñaan pour nga jël break on social media suñ yaay nga Amina jañ dañ lay ñaan pour nga jël break on social media ngay julli ut kurus di kalaw di julli di ñoy ñaanal suñ Halis xaaliss ñu yóbbu la maka suñ amé xaaliss ñu yobu la maka nga dem aji ji fogna is better than all these push and pull push and pull ñu la ñaan ngir yalla as e mom ngir yalla mo gën so gisé may wax li na ya ta life nga wax so buge kurus sa ñun nyor ñoo ñaan donation jëna la kurus ak kala ñu indil la ko amina jaay nga jël break on social media mën nañ ko def kurus ak kaala ak kaamil mun naa la koo jëndal yónnee la ko nga jël break on social media Amina Diagne moo gën xuloo bee lifin yi yëpp benn jëriñ xuloo everyday xuloo everyday xuloo everyday man dama ko bañ man ba dama jox respect yaay laa la dee ooyee musuma laa disrespect in social media ku la disrespect mooy ayoon li di xale bu ndaw boobu noonu record la mo indi ciow bi ni yëpp di dem on nga bëgg ma bilim duma ko nangu dama gëna ma defend suma bopa yow nga nekk mag nga nekk em mom loy demee ci ayo liri di wa affaire jambour bem la record yow nga nekk em mom so demee ci ayo liri waxtaan naa ak moom topic waaye bu leen waxtaan affaire jambour jàmbur la record lool dafa ñaaw sa problème yow ay da Boss lool yeen ñaar sen problème la yeen ñep ay mag ngeen Yen ñëpp wara bay social media amul amul ti amul clé yéen ñëpp yéen ñëpp wara war social media ye soo leen nekkee ay mak ñu ñu wara roy ci yeen wala yeen ñu wara a ci yeen duñ am ci ko bu ba buñ copy ci yeen katel dafa am lu mala la bëgg a yokkal Amina katel lu wax digala tey ñun ñi hulo biiri TikTok non yaa ma tu koxta ñun ñun xale ñu nekk xee bir tiktok yow tey da nga war a gis ñuy reyante nga dugal ñu nga kool ñu nga lijjanti suñ nomba nga dugal ñu yëpp ñun ñëpp si groupe kool nga bu saga la nga saga ñu bu has la nga has ñu be nga nëb be ñu nëb ñun be ñu nëb nga meeg soo ñu nekkaat beena waaye mag bu ni yow nga dem di joxe information yow te ku joxe sa information ci mag du la neex. Balanka xaaral dañ dañ bëgg a pare bu ñu invite muy sista Aida Boss muy sista Aida Boss mun naa am yaa ko mag waaye sista Aida Boss tey dugal nañu ñun ñëpp si kool try na all level besam sista Aisha la Balanka la madame Fall Sali ñoo def groupe kool ñu dugal ma dugal kaatel dugal ñoom Adama joon dugal ñoom Awa joon pour def jaama suñu diggante yow loolu moo la war next time before doing something think because yow mën naa am am nga doom ñu ñu mag te tey buñ la ni ko kaatel waxee yow boo ñu dépassé du ñu de waaye ñun buñ la dépassé daf lay métti so next time boo gisee si ay moroomi doom ñuy xuloo ah as a mother that you are because tey lu mu bon bon suñu yaay nga. mu neex ñu mu naxare ñu suñu yaay nga waaye meeg sooyal nga lijjanti ñu boo ñu xamutee sax nga kool ñu. ah man sax man sax kool na ma sax man ngi woon si live soir kool na ma bala moo dem di defar live. dama moo dem di defar ma kool you anyway so léegi Amina Diagne yow sa topic close nañ ko foofu noonu you know so yow pare nañ like man pare naa si sa topic na te duma si waxaat te su la neexee nga génn nga taalama Facebook live saaga ma ba ëllëg du ma la tontu bi ko dama la jox respect bi you know léegi suñ